gaay nañ def benn chronique incha allah baaxee leen ko mais avant li nga xam ne nag mooy mariage ki nga xam ne mooy Keita Baldé Diao joueurs yi ñoo fa nekkoon muy kii ni xam ne nag mooy Mbaye Diagne ak aussi Alfred Gomis mi ngi fa woon kii di Ibrahima Mbaye mi ngi fa woon ak aussi Abdou Diallo ñoom demoon nañu représenté nga xam ne mooy Sénégal yi fa nekkoon également Amadou Sagna mi nga xam ne tey ah moom chamois le signé moom booy bi nga xam ne aussi nekk na ci ñoo xam ne marqué na équipe nationale petite catégorie ak coupe monde beeg yooyu noonu nekk koo xam ne aujourd'hui c'est un jeune très talentueux mais malheureusement malheureusement aventure mu am du côté de Bruges euh, mujj dox mu France actuellement mi ngi dem deuxième division on espère que ça va lui réussir le jeune Sagna qui est un jeune bo xamné il est pétri de talent Khalil la également il a beaucoup d'avenir et inshallah on lui souhaite le meilleur comme on ñu koy souhaité joueurs yu parce que ñom ñoy relève bien. Hein. quand on parle de lui on on pense plutôt au Samba Diallo et autres aussi li ngeen ni Tunisie jëm double confrontation yi nga xam mo wara am jëm ci li nga xam moy coupe d'Afrique hein éliminatoire 2023 par rapport ak li nga xam donc mooy équipe Tunisie bi donc mi ngi nii ngeen aussi ki di wax bi Kadri donc en tant que métronome équipe bi ci la bok pendant ce temps du côté d'Algérie il se peut que nga xam sax c'est presque euh, à 90% confirmé que nga xam sax mom à 100% sax mën nañ ko wax parce que wa Manchester City def nañ déclaration wax ni ki nga xam ne Riyad Mahrez match bi ñu jëm Algérie double match yi du daal bok ci liste bi est ce que dafay coup est ce que également fay wax ne day mettre en parenthèse équipe bu Algérie non première version mo gën woor wóor que ne dafa bëgg noppaliku image bi na gars yi dañu koy baaxee tay pour faire le lien yaa ngi a également li kañ la woon gaay li kañ la woon donc Lionel Messi contre ki nga xamné ben joueur la bo xam défenseur allemand la boobu ban kañ la woon ak kan la woon aussi etan Mbappé le petit frère de ki nga xamné ne nag mooy Kylian Mbappé mom nak signé na ak ñi nga moy comme mu nekk sen Égérien ah, mom nga xamné etan Mbappé mi ngi ci U16 ak U17 yu Paris Saint-Germain le petit frère donc de kian Mbappé également gars qui nak di officiel hein c'est officiel que né waa Chelsea léegi nak ñom wa gouvernement britannique bi jox nañ autorisation pour Todd Bowley dal di koy jënd donc officiellement fi mu ne nii nag mun nañ wax né Chelsea jaay nañ ko et que jaay bi euh, valider nañ ko donc Todd Bowley mun na génne deux millions yi mu waxoon da koy teg table pour ki nga xamné moy donc Thomas Tuchel pendant ce temps ñi nga xamné ne nag mooy Inverse Corp ñu waxon ne ñom ñoo bëgg jënd Milan AC ñom sen directeur général def na déclaration ne na mujjee déggoo ak Milan AC motax nak ñom jënd bi ñu danoon jëndee Milan dañ koy dal di bayyi pour dal ba mais pour l'instant mënatul n'est ngeen gis ni également di Anguissa nga xamné nak nak wa Fulham mom ko Napoli bu du Koulibaly Napoli nak option d'achat donc actuellement l'international camerounais Anguissa légui nek na joueur du Napoli à 100 pendant ce temps également, Mathias Oliveira, ancien joueur également hein, de Retafe, Mom signé aussi du côté du Napoli, annoncé Nenko. Hein. Donc, Mom il était du côté de l'Italie pour Dari, def dernier paparazzi également, dernier visite et tout pour signer contrat. Donc, officiellement, signé un contrat. Maxwell Cornet, Mom ancien joueur de l'Olympique euh, lyonnais, euh, sur Burnley Burnley deuxième division championship mais moom actuellement club yu il se met à Aston Villa également West Ham et tout a

aujourd'hui donc euh, di waa euh, Séville bëgguñu ko jaay mais nag kii moom priorité la ko def na teg ci table bi moom tamit millions pour daal di jënd ki xam ne mooy euh, kii di Jules Koundé ah, de Jong Lewandowski moom dafa dafa bëgg a dem Barça de Jong nag Barça bëgg ko jaay mais fi nii Bayern neen bu fekkee daal nangu nañu ko teg ci table bi teg Frenkie de Jong ci table bi ñoom nañ leen jox ki xam ne mooy Lewandowski parce que Bayern ba léegi nanguwul moom nag actuellement mi ngi du côté de Sivasspor mom tay mo leen jox sax li nga xamne moy trophée coupe Turquie bi parce que mon remplaçant le fa mais tay dafa dougu hein ah, dans les arrêts de jeu 113e minute cent dixième cent treizième minute le dougu ba mu rek gars dougal bi nga xamne motax Sivasspor daal di jël li di trophée coupe Turquie bi mu nek premier biom également ci équipe bobu mom mi nga xamne il va peut-être quitter et c'est presque sûr de quitter équipe bobu Moussa Konaté mi nga xamne génération 2012 ak ñom Sadio Mané gars tay nak ki lañuy waxtané ki moy Pape Ñoxar Fall Pape Ñoxor Fall Gaye buñ koy wax mom légende là du côté de l'équipe nationale du Sénégal mais également de la Jeanne de Dakar milieu de terrain là mais aujourd'hui Pape Ndiokhote Fall gars bu wax équipe nationale du Sénégal ñom ñoo tax ñu wax génération 98 2000 ba ñew fi tay bu wax équipe nationale du Sénégal ñom ñoo lancé li nga xam aventure du Sénégal ndax Sénégal gëj na qualifier Coupe d'Afrique ñom Pape Ndiokhote Fall ñoo leen yobu Coupe d'Afrique Pape Ndiokhote Fall nak à ses débuts milieu de terrain la won ñew équipe nationale du Sénégal ñu football loco latéral football na latéral gauche football na latéral droit mais Pape nous fal également une légende du côté de la gendarmerie de Dakar mon nag booy seet muy tay di Salif Diao di également ki am am di fay ñom ñoo won équipe cadette bu nga xam moy mooy d'Arc de Dakar Salif Diao ak ki am di fay dem fa nga moy donc Aldo Gentina mom mu dess fa ba mu fa dessé également 1996 le daal di dugg li nga xam moy équipe nationale cadet mom ak nga xam Henri Camara et tout jeune Amical Cabral ak équipe nationale du Sénégal dem ba finale Guinée mo leen dóoroon aussi ki nga xam moy donc Pape Ñoxar Fall coupe CAF Ligue des champions ñom ñoo tax tay bu Sénégal ay jamono don am ñaari représentant compétition africaine ñom ñoo taxone ñom ñoo mujjé dem final également li nga xam mooy compétition africaine bo xamné euh, équipe Sénégal bokk na ci championnat bi ñom pam ñoko Fall également c'était la génération bi nga xam ne ñoo ànd ak Peter bo boo leen fàttaliku ñom ñoo demoon ba quart de finale day également li nga xam moy nigeria hein ah, mom mo moo ki nga xamné moy mooy Okocha indi ko problème match bob jay Okocha sax dafa mujjee woon mera ah, am ci carton rouge ñom pam ñoko Fall bi nga xamné mom moom bokk na si joueurs locaux yo xamné tay ils se sont imposés au niveau de l'équipe nationale du Sénégal parce que mom ba dara dul dara la fa nekkoon mais aujourd'hui Sénégal Sénégal dañuy gaaw faté ko xam dañuy sul daanaan dañ Sénégal dañuy sul daanaan mais Sénégal également day faté daanaan mais aujourd'hui tay buñu wax football gaay ñi dañu tax ñuy wax football du Sénégal et que pour ñom tay ñi war nañ leen impliqué aujourd'hui il est du côté de Rufisque parce que doomu Rufisque la et tout même bu fekkee né joué na du côté de la Jarac de Dakar mais saison des personnalités yoo gaay ne ñu yi leen donc aujourd'hui Pape Ndiokha Fall il est au niveau donc de sa ville di def limuy def mais gars n'oubliez pas demain c'est la conférence de presse d'Aliou Cissé on se donne rendez-vous toujours plaisir de vous servir gars Dia jaa Jeff.